dina sëñ Fallou mënu ma woon dox mënu ma woon wax sama baay fi nekk sama dem na fa sëriñ bu dul sëriñ bi ni sama baay dem na fa déen góor ñu sama baay ko Abdoulaye mu ko Mbàkke mu ne ko waaw ndax yóbbu ko sëñ Fallou sama baay ñu ko ah, man de yóbbu ma sëñ ko nen dem sëñ Fallou bi ñëw sëñ Fallou nekkal sëñ Fallou di sama baay daa koy tàccu ñu ko ani moor sama baay ñu ko ah, moor moo ma tax a jóg ko xam naa lépp moor moom de dem na fu nekk mu ne ko waaw mu ne ko xamal naa dee ñëw man ndax maanaam lu lu lu mu yàq lu mu yàgg-yàgg xamal naa dee ñëw te boo ñëwee daan may daal may daal may teg si këm seen Paul seen Paul dama ko ba yàgg ni ma moo jugal waay ma laa jug min ma wax ma laa wax min ma loo wax maa la ko wax loo def maa la ko wax la loolu ma koy sant yàlla di ko sant yonent bi di ko sant Sëriñ Fallu di ñaan yàlla yàlla dafa jàmm ci darige borom ta Mbàkke barke El Hadj Fall barke la ilaha illallah Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam El Hadj Fallu Mbàkke yaaka xaw na na xawaale mbàkk yomal xiyaame dëboon yu baale allah ji fal mbàkk yaaka xaw mbàkk na na xawaale mbàkk yomal xiyaame dëboon yu baale na na xawaale mbàkk yomal xiyaame dëboon yu baale maa ngi ñaan ci dérégé Cheikhul Khadim yàlla yàlla fa jàmm ci dérégé allah ji fal mbàkke ndaamal aw buso bàyyi muul buso borom diine saam ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf